jaajëf mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di nuyu ñëpp di ah, sàkku ñëpp rek ah, ci ñaan ah, ci weeru koor gi comme que weer boo xam ne weeru weeru ñaan la weeru njéggal la yàlla ñu borom bi jéggal nangu ñaan yëpp macha allah di nuyu ñëpp sénégalais yëpp. kon ñu ngi ci seen troisième numéro après Ada Fass tey ñu ngi ci adversaire Ada Fass di qualifié numéro 2 moom lañ ñëw fekk si fii ci taatu géej gi gis ngeen brise bi. ci brise bi nekk gars yi waa kafe gaa ngi fi mais waa kafe gi après incha allah ñoom ñëpp bu soobee yàlla après dinañ euh, def benn affaire ci ñoom quoi en image alors Coly gannaaw bi ma la nuyoo baalu la ak baal la ak maa ngi lay bàyyi nga nuyoo ko mbokk yi ñuy seetaan ci Sénégal. waaw bisimilah asbilahi na wàllu yàlla jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba maa ngi nuyu caare gi yëpp ginnaaw ma sant yàlla jël seen gërëm suma ñaari waajur maa ngi baalu ñëpp ak di baal ñëpp ak hmm. maa ngi nuyu caare gi yëpp di leen sant leen gërëm du nuyu ñëpp Papa Ngeen maa ngi lay nuyu yow di la sant di la gërëm. Mm. di la baalu àq. mais sonal nga ma. waaw war nga ma baalu àq bu baax. non moo tax maa ngi lay baalu. waaw baalu ma de. di nuyu waa Zang Mbaaw di leen baal àq. di leen baal àq waa Diamaguène. Mm. Thiaré Azur. Lamsar. Jaksaaw Sicap. Fass Mbaaw Petit Mbaaw Grand Mbaaw Kër Massar ak Zang Mbaaw gi ma dëkk. Mm. di baalu ñëpp àq di baalu ñëpp àq. waaw sama adversaire sama adversaire aussi Arafas maa ngi lay baalu àq di la baal àq. di la ñaanal ñu am koor jàmm eh. non yow kañ danga naan ko kooru jàmm rek. dañu war a ay saa yi ak yow ak moom. jotagul de baal baal ko ak rek. jotagul de si weeru baalante ak la nekkoon. ok dinaa ñëw foofu ci bal ak boobu man baal naa la baal naa ñëpp. alors li ñuy njëkk a waxtaanee tey euh, Seydina moo nekk ci kaam bi l' américain américain la de. Ah. dafa jugee Amérique dof. seetlu woo ko ni gisoo xawul niroo ko tàggali ko xelam nii tuuti. waaw jàmm ah, ci dërëm jot ko. l' <laughs> américain di la ziar. ak euh, jëwriñ bi ñu ngi koy nuyu bu baax a baax Adama euh, ñu ngi ci weeru koor mm-hmm. war nañu di entamer suñu deuxième semaine euh, dañu doon laaj Coly de balaa ñuy dugg ci ay combat ak yooyu noonu Coly mm-hmm. Faye mi ngi woor normalement. ah man damay woor. normalement premier bi ba ba tey yi ni ñuy wax. non dëgg fa yàlla man ma xamee xamee ba tey. Mm. mosuma fàttali fu weer koo jëlee a woor ma. aha mm-hmm. dama doon dégg ñu naan mbër yi du ñu woor quoi. non man damay woor parce que mbër li muy lekk. mbër li muy entraîné coono gi muy daj bu ci naree teg woor day métti si moom. mais mbër tamit ay nit lañ comme nit rek. Hmm. ku si wóorul da ngaa topp la neex rek. entraînement yi mooy métti. entraînement yi day métti après ndogu la. waaw après ndogu la ngay hmm. boo ndogoo par dem salle. Hmm. musculation boo jógee musculation ñëw toog dal noppaliku. ba ay deux heures du matin nga demaat géej. physique wala nga dem diin. waaw sans départ rek. mais sonal nii quoi. non non man tàmm naa xiif. parce campagne dem géej. ay damay am géej non géej da ngeen di yóbbu mburaage. boo leen lakk jën. non non sans napp jën rek lakk. non sans départ jën bi dem géej lekk jën sans départ si nga jàpp jën. d'accord waaw. Ah. mën nga mën nga tegle un mois dem géej doo jàpp dara. doo dara doo jàpp dara ak mu yaatoo. yow ngay dem léegi fere 10 millions dem ñëw exemple laa la wax de fere dem ñëw jàpp dara perte ko. nga ñëw si zéro. ñëw si zéro nga ñëw wutiwaat dem. loolu lu koy indi. ah ñaaka jàpp rek. yéen jën yooyu daw. Ah, wala yéen xamul yoon bi non jëni mooy daw rek wala parfois ngeen réer non mooy daw rek yéen saa nga dem doo ko fekk nga mm. rëbb la rek ah, waaw rëbb la waaw rek mm, yéen saa nga fekk la yéen saa nga doo ko kon yaa ngi woor normalement ah, maa ngi woor normalement mais séance euh, entraînement yi naka lay demee comme yaa ngi yow ci combat waaw séance entraînement yi ndaw mais su ma ndogoona tuuti laay tuuti laay copp waaw damay naan café mm-hmm. lekk tuuti pain naan kilo mburu non non dinaa lekk libre nag <laughs> libre rek libre waaw <laughs> naa ko lekk def ci ndam su ma paree looy def ci biir mburu bi. non mburu bi sans départ rek. sans départ waaw waxuma sans départ la ci dem rek. day am ndambe. waaw day am ndambe yenn saa yi. ndambe mayonnaise. macaroni non man nag ay ndambe ay mayonnaise yu. doo jaxase dama ko ndogu parce que dama am soxna. Ah, da nga defaral ndogu ndogu bu baax. ndogu bu baax waaw yu baax. ah da nga bëgg a wax Ada Fass mooy lekk ay pain ndambe. non moom nee na pain ndambe lay dóor mayonnaise. non man sama ndogu laa xam. waaw ah. ndambe lu baax la. waaw ah. feer la. waaw dama koy coob nag. Mm. mais échange yi nii weeru koor yu nekk. maanaam da lay defal yu baax yu baax. comme lan la yooyu ay saucisson non waaw loo xalaat rek ci biir. ay merguez. voilà yoo xam nga yoo xam yi la madame defar rek comme yooyu noonu. <laughs> damay defar non xam nga lu baax nag. madame madame bravo bravo madame. Mm. mbër nag dañ koy toppatoo. non sama sama soxna moom mention spéciale. dëgg fa yàlla mention spéciale. moom ay waa këram. ñu ngi toppatoo bu baax ak samay mm. waa kër. Mm. waaw ñu may toppatoo bu baax. moo tax ba ma lay gis avant ak léegi nii da nga changé da nga leer. waaw ah, c'est normal nga xees lay. non am na loo xam tamit boo ko hmm. bu njëkk ama ko bu njëkk damay war a dem entraînement di seet sama benn kawas nga hmm. wër pendant une heure de temps hmm. sama benn tubéy wala sama benn dàll hmm. léegi damay jóg fekk lépp lépp lañ rangé lépp tege damay ñëw rek sol dem jël rek dem boo ñëwee simmi teg ñu fóot ko mu set jël rek dem dama su ma jógee entraînement damay ñëw simmi rek sànni Ada Fass day wër kawas yi rek ak dàll yi ah Ada Fass fa lay nekk di wër kawas yi dina si jóg dàll yi da siy jóg da siy jóg bu tollee fi ma toll rek mu jóg si ak équipement yi da ngay wër <laughs> alors séance d'entraînement yi naka lay demee guddi ngay entraîner fajar bi da ngeen ko bàyyi wala. non gi dañuy def deux séances. pare dem salle. waaw loolu la mhm. pare ñëw toog ba deux heures du matin ñu dem géej wala ñu dem salle de musculation. deux heures du matin wala ñu dem diin waaw ñu dem diin ñeme ngeen di deux heures ak sedd bi. ñun fii lañ nag si ndox mi. Mhm. nga ñun ak géej gi zéro mètre. waaw sedd sedd moom dëgg fa yàlla miis na ko moom. sorol la ok ok mais nga nekk ci combat di woor est que metti na. non non méttiwul parce non c'est que benn benn benn changement lay muy deux heures du matin bi ngay entraînement. waaw loolu rek mooy changement bi. Hmm. te changement deux deux heures du matin moom mooy mooy trois séances yi ñu doon def si ñun bu ñu amee heures du matin hmm. ñëw toog day ñëw ndekki ba suur. tëdd nelaw récupéré non non duñ duñ tëdd day ñëw ndekki ba suur sangu changé yére. dem saal ñu dem saal sept heures huit heures ñu dem saal. Hmm. bu mu paree ñëw nelaw ba ngoon ba. trois heures quinze heures. ñu yeewu añ yéeg si oto dem diin. wala ngeen dem contact. wala ñu dem contact waaw. Hmm. mais alors combat bu capital bu mel nii nga am balaa ñuy dugg noonu ci combat boobu noonu sax euh, entraînement yi wax nga ko ñaari séance ngeen di def peut-être li indi changement mooy deux heures du matin bi ngeen di kii. mais est-ce que lekk bi day day am changement parce que heure lekk yi ak heure bi ngeen dem entraînement surtout guddi lay nit di di lekk yenn heure yi quoi nga war a dem entraînement. yooyu tamit lekk gi naka lay demee lu oyof la wala da ngay lekk lu diis. non léegi ça dépasse yow mais saa yi lekk yi nga war a dem dune deux heures du matin. mënul sotti de man dëgg mu may toppatoo bu baax. li ma war a lekk yëpp xam na. yow daal loolu lekk daal boo demee dune du la déranger. non du ma déranger dëgg fa yàlla. yaa ngi gërëm madame rek. ah madame lay yow tey da ngaa jommi de da ngaa dugg ci loola jommal. non non xam nga problème bi. da mel na nga dugg ci loola jommal quoi. waaw waaw ne da nga dugg ci loola jom dañu maanaam boo déggee may la da nga dugg ci luñ la lu la jommal vie wu célibataire ak vie wu marié bokkul. waaw màggat man damay bokk ak dama am samay mag yoo bokkal ndaay bàyyi samay rak. waaw ñu comprendre ma di ma taxaw. Hmm. samay doom bàyyi samay doom bàjjen. Hmm. samay doomu nday hmm. di ma taxaw si côté yëpp lu ma bëgg ñu dox si. yaa ngi dégg xaar xaaruñu ma si dara man tam xaaruma leen si dara. waaw kon man daal ak samay xarit. yu baax. sant sama staff ak samay xarit yi ma jàppale. ñëpp. képp kuy xam ne yaa ngi sonn si maanaam ma la sant di la gërëm. après di nga leen sant. mais ñu fekk ci weeru koor gi yaa ngi euh, sa copain yi. sa xarit yi sa dëkkandoo yi ngeen teg kafe gi comme li ñu fekk rek ci Ada Fass. waaw teg euh, mbana bi di defar kafe gi. non fi moom même bu dul làmb sax ni lay demee. waaw chaque jour Baye Fall fi la ñuy daje. am na yeneen ñaar axlu café yu nekk fee benn bi mu ngi ruq cëm. dañuy doxoon dañuy doxoon waaw dañuy doxoon dem fa sax après benn bi mu ngi camp. waaw mm. ñi a après nañ fa doxantu dem fa. dañ fay dem xool leen waaw xool leen. mooy sama gars nekk kaay. kaw tamit waaw ñu ngi teg café gi di ma mm-hmm, mm-hmm. ak sama gars yi nekk Rokucem tamit waa mafia bi. ñu ngi Rokucem Rokucem fii ci mm-hmm. fi jot a mën dem rek la dem. mais café gi. bu ñu ba noppi da ngeen koy séddale si biir koñ bi quoi. café ndog lañ koy séddale. pour gars yi mën a loolu loolu loolu lu rafet la Ada Fass lii lay def. waaw sa comme Ada Fass lii lay def. c'est normal moom Baye Fall la comme man rek. waaw ay Baye ko ñaanal jàmm di ko ñaanal yoonu Baye Fall bi ñu jotee yàlla nga si yàlla nga si Cheikh Ibra teew rek. amiin teeru ko bu baax ñaanal ko mu dem ca kaw ca kanam rek. Mm, mm. waaw boo xam ne bëgg si yoonu Baye Fall yàlla nga si yàlla suñu borom jàmmale. Mm, Baye Fall la quoi ku sopp la. ok alors Coly si euh, weeru koor lañ nekk nag du ñu wax ci weeru koor te du ñu wax ci wàllu jaamu yàlla Coly Faye na alxuraan. jàng na alxuraan gàncax laa doon jàngee fan. Gandiaye. Gandiaye. Gandiaye moo nekk fan. Gandiaye moo ne après Fatick. Gandiaye. Gandiaye waaw ah Gandiaye xam naa mm-hmm. Gandiaye après Fatick la nekk. waaw fa nga jàngee bi nga ne bi nga amee ñaata at nga dugg nga dugg Daara. man na teel a dem Daara te dëgër mm. boobu moo tax ma dem Daara nag. ay ñaata at yooyu. presque ay douze ans. douze ans. ay douze ans yooyu daal. dañ la dañ la tëbal wala. non non. da nga dëgër bopp ës ba gaay la. daara jàng école waaw. war a jàngi. Hmm. su ma demee heure su ma war a jàngi dama dem di bëre bañ sàcc si ma fermeture yóbbu ko. Hmm. ma dem war a war a jàngi nekk si terrain fële. na benn terrain bu nekkoon caari agir. waaw fii si Khadija ne ay tool la. waaw maa ngi nekk foofu di bëre. benn gars ñëw foofu ndax ñu yóbbu suñu fermeture yëpp. Hmm. ñu ñëw ragal a ñibbi si fii. yóbbu sa bagage yëpp. yóbbu ñu ñëw ragal a ñibbi si suñu papa dafa sadigoon nag ñun. bu ñu doon dóor du ñu yërëm quoi. war na sëñ Bamba. bu defoon erreur du la baal. da lay jubbanti ba mu mat. te doo fanaan àll. foo nekk da lay jëli Ah. waaw loolu moo waroon nag mu après ma forcé ne damay dem géej hmm. bëgguma jàng bi hmm. mu ne ñun duñ dem géej hmm. parce que il faut ñu dem jàngi métier wala ñu dem jàngi alxuraan mais duñ dem géej mu yóbbu ñu si benn maga bu nekk fee gànjaay Oustaz Loum benn maga bu nekk foofu gànjaay waaw fa la ma yóbbu may jàng après ma nekk fa nekk fa portage ma daal daw ñibbisi nekk nga ñaata at nekk naa fa ay quatre ans quatre ans xaw ma cinq gisoo papa gisoo yaay gisuma kenn dama yàgg si tumuraanke de nga nekk ca gànjaay ma nekk si gànjaay ma nekk gànjaay ma jógee gànjaay ma jógee gànjaay ñëw ñibbi si ñu ma Gambie Gambie encore laa nekk 2002 euh, laa fa dem xam nga 2003 pour jàng alxuraan rek pour jàng waaw 2003 laa fa dem xam nga 2003 laa fa dem waaw mm, mm. nekk ba mel ni foofu nga gën a yàgg foofu laa gën a rampe waaw ok Gambie ni ma xamee caare laa ko nga jàng fa alxuraan nice nice donc Gambie dama doon dem géej nga doon dem géej waaw dama kon daal fa nga defee métier bi quoi métier géej bi fa nga ko jàngee daal si sa mag sama mag waaw ma bokkal ndey baay ok xam naa moo la doon jubbanti xam naa moola gën a sadik non kooku moom moom la moom moo la gën a sadik non kooku ma doon jaay <laughs> kooku daf la ma doon jéem a jaay quoi moom sama grand bu leen toog <laughs> xam naa ñu ne booy bi dafa <laughs> ës sama grand yi nekk Gambie ay ñoom Mara ñoom Elzo ay Big Moise Bala Bada Diop miin nga Gambie de ay ñoom Jëf Yal miin naa fa sama gars fa nekk ñëpp yow ay Assane Gueye ay Sini may sant ñëpp di gërëm ñëpp waa Gambie sénégalais nga Gambien nga waaw yàgg naa fa daal sénégalais nga Gambien nga waaw yàgg naa fa waaw miin naa jaay la sadik jaay la dox jubbanti la foofu di la yóbbu géej hmm. dëgg fa dama naa bay commencé dugg ci lu ne ci eh. lu ne mais grand xam nga rek nit moom boo nekkee mais dégg dégg naa dégg nga nekkoon nga baal ma ah. hmm. wëyu nga woon non man mosuma nekk wëyu nag nit nit doo ko si ci kanamam waaw c'est que mooy yenn jugement yi nit yi di def si nit. te duñu xam. ne kooku non kooku bandi la wala ñu ne non kooku wuyu la. non c'est nga nit. Mm. nit boo ko jàppee comme sa doom. Mm. doo ko seedeel yenn yi. yaa ngi dégg ba lay baay doo ko seedeel man baaru baaru ginnaaw. surtout loo xamul quoi. waaw loo xamul. ak koo dul mu man mosuma agressé nit. mosuma mm. rey nit. mosoo sàcc mosuma jàmbur mosuma def dara. mosoo sàcc amaana. nit ñooy xool kanamu nit rek bu ko jugé. waaw yàlla suñu borom mooy bind nit noonu. képp ku ma waxal. ak xadar ñun suñu xadar ci làmb la yem. Hmm. bu weesoo làmb jeex na. Eh, man xam naa loolu man xam naa la man xam naa la. xam nga yow man xam naa la làmb moom bu ci nekkee ñun beneen nit la ñuy doon. bu nekkee ci làmb beneen nit la ñuy doon beneen la. waaw beneen beneen la ñuy doon dañuy ceeñ koli hmm. bi ñëw làmb ak koli nekk ci mbedd parce que nii parce que à chaque fois buy bëre yoonu Fass beeg ak yoonu stade lu ci bëri gars yi dañuy nekk ci mbedd mi di agressé di di këf yëfi jàmbur yi ma ne ko mais ñi nga xamante nii dañuy def lu mel noonu di ko tuumaal say àndandoo mais loolu loo ciy wax mais xam la mooy problème mais loolu sax du ko sax yëg comme tey ji exemple quoi bu fekkoon ni Arafas ñi ànd ak ñëpp xam na mm-hmm. yaa ngi dégg dina mën ñëw kat ni kat pa maga xamul ñëpp xamul ñëpp fu ne la nga événement bu amee fu ne la nit jóge di ñëw profito si événement voilà am ñuy profito doo mën a xam ñëpp ñaar ñaar personne ñoo ñoo ñoo da ngay xool exemple ma jox exemple Siteu. waaw xool ñaar personne ñoo ko supporté. kenn xamu ko ñooñu xaj ñu jàmm nga ñooñu kenn xam nit mun laa wax ñooñu fii dëkk. kenn xamul fu ñu jógee. yaa ngi dégg. Mm-hmm. bu fekkoon nag amaana tey jii Arafat xam na ñooñu ñëpp. Mm-hmm. day dem su ko nekk mu wax a ñoom mais xamu leen gars yi nañ bàyyi baatu ginnaaw. Mm-hmm. moo tax toujours rek dafay rafet man toujours fu ma nekkee samay mborom mu mbër. lañ leen di jëwee naa leen ko àggee su ma leen ko àggee ñu décortiquer loolu toj loolu mu am lu mu ci indi ci wàllu Euh, rectification maanaam du tontu de. dañuy rectifier. dañuy leeral. mais du doon loo xamante ne ay tontu la dañuy setal ba mu set wecc. parce que loolu amu fi parce que tey ku gis sa gars yi fi toog nii macha allah ay nit yu set ay nit yu clean ay nit yu nite ñoo fi nekk ay nit ñoo fi nekk mais làmb na comme ni nga ko waxee làmb beneen affaire la. loolu sport de combat la xeex la xare la ah yëfu sadik la dañuy nekk sadik parce que làmb ji loolu la laaj mais nag bu ñu waree nekk ay nit. saa yi bu waree nekk qualifié numéro de normal saa yi nag boo ñëwee kojam doo xàmmee de. noonu leer làmb moo demee noonu. mais nañ bàyyi tilimal ba yi alors ban ban ban saar nga ma mënal tari muy saar boo xam ni saar boo bëgg la sa xol. ci li nga jàng dëgg fa yàlla moom saar yi ma mën a wax xul wa allaaw. bul wax qul a'uuzu bi rabbin boo wax Fatiha. tari ma benn saar bu neex. saar yi ma mën a tari bari na bu la waaw ban nga bëgg sa xol mais mais mais nga jégal ma ko wax ndax benn saar rek. non wóor na sëñ Bamba Mbacke déggoo ma la wax. non billaahi ak sama déggoo ak sama bakkan ma la mën a bëri tari na. mais xam laa nekkul lu ñuy fooyee xam la laa ci jublu. waaw ah. foowu ñu dañuy liggéey fi mu xam naa li nga wax. te li ñuy liggéey nii. man déggoo waaw defal naa nga rek ki ma jàngal. waaw dama yàgg tëkku ci loolu. Euh, nga baña a tari. fu nekkul alxuraan foo toll rek nga koy tari. ok fu mu jotee rek ni nga ko defee. non dañu nekk si weeru koor. waaw xam na nekk si weeru jaamu yàlla. waaw xam naa te weeru jaamu yàlla boobu mbër yi nga xam ne dañuy bëre te surtout am ñu bëri ñoo xam dañuy joxeñ mbër yi gis nga li waaw moo tax mais fene booy toog di wàcc kaami waaw fa a moo tax ma pose bàyyi booy ñuy wàcc hmm. kon daal jàng nga ba sori ba mën a wàcc kaami jàng naa ba a nga kaami ñëw non nga wàcc kaami nga ko jàng dem mais daal da ma ñaan ne dama la ñaan loolu quoi ndax dañ ma koy dañ ma ci yàgg dañ la ko dañ la dañ ma ci yàgg kii ah ñun de dañu bëggoon wane ne rek diw jàng na. non jàng naa mais xam nga. xam nga diine si diine gi lañ nekk comme ñun mënuñoo toog di waaraate. Mm-hmm. ñu toog def émission ak mbër yi. lu leer mais xam nga dama dama seetaan mu wax si loolu. wala xaar yaa daba xan. waaw fan mu yaari subu xan. fan mu koy raadu nag xan. Mm. yaa ngi dégg mm. yi di ko classé si loolu. Mm. te amaana moom ñu ngi koy xelal jàppee ko dara. nee na ay mbir la woon. waaw ay da ko doon wax ngir noonu même même bu dul tegtal sax. da ko doon wax ngir noonu rek. micro mais foog nit ñuy gisee ak ni mu ko waxee nekkul benn. Hmm. man loolu laay bañ mu dal ma. ok ok ok kon baax na jégal naa la ko Sénégal moo nekk réew critique. jégal naa la gars yi da ngay wax chance bi yóbbu ko chance bële. Hmm. wallaahi bañ ko naa la ko. dama dama xaw weer donc. Ah, naa la lépp nangul lépp. nangul naa lépp alors tey bu ñu ñëwee léegi ci ci làmb ji. Hmm. jóge nañ ci njàng mi ak ci côté alxuraan jàng nga ko euh, tari bi dañ la koy jégal léegi nag yaa ngi jëm ci combat boo xamante ni mbokk yi ñu ngi jëm ci combat bu doy waar Ada Fass ak Coly Faye numéro 2 Ada Fass dem nañu waxtaan ak moom am na ay kàddu yu mu yëkkati xam naa dégg nga ko seetaan nga ko. seetaan naa lan la wax. ah wax na ay waxam waat na ne damay daan. nee na dañ ko yónni yàkkamti ko. waaw nee na du yow yaa koy téye te nee na dalaa xam nee na yow bi ngay bëree xale bu ndaw la dala doon seetaan. ba Maguette man 1990 laa judd. 1990. waaw kon fekkee woo Sénégal 92. da nga may wax yow kii yéen a maase. war na Seydina Mohamed. billaahi wallaahi taalaa li may wax su ma ci waree baat ma am ndam sama combat Ada Fass. 1990 laa mais ba tey yaa mag Ada Fass. garaawul. lamb sa suñu mbër bëre. mais daal nga man nanga naa koo mag. waaw garaawul mais doo paa quoi nga bëgg a wax ma nekk paa. garaawul bëgg naa. non 90 du paa. ah non bàyyi ma nekk paa paa ah. paa la ma garaaw baa ma nekk paa non non loolu moom moo wax. sëy naa wala wax ko. seeraan naa ko mu wax. waaw wax na waat na ne damay daan. waaw dañ ko yónni yaa xam ne ko. daf ko waat waaw. est que si man la waatee. non si li la ko. waaw du si man la waatee la ko seeraan waaw waaw waaw bu ko daan ay su sama kaw daanu su ma ko songee daanu. loolu la wax loolu moom wax na ma ko. xëy na moom foofu la toll boo bëree waaw boo xeexee daanu. boo ngalajoo daanu. Mm-hmm. boo naawee daanu. boo raamee daanu. moom li muy wax. waaw foofu la tollool foofu la tolloon. waaw wala foofu la. tolloon te foofu la toll nii foofu la tolloon te foofu la toll nii. ah d'accord ok. ñaari wax laa la foofu la tolloon te foofu la toll nii. maanaam boo ma koy tënkal. li nga maanaam wax la tolloon. ah te si wax la toll. Ada Fass nag day jëf de. dëgg la gisoo yi mu jëf nii. wax la tolloo te si wax la toll dafa mbër ak Jokal. danañ dafa mbër ni Jokal ni Colifay 2. waaw. yaa ngi dégg. non Colifay 2 moom daal man dama koy bàyyi dégg man dama koy bàyyi wax ji. man li may wax. li ma waxoon signature laay wax man jour ci laa si xam moom nekkul man maay toog di jokkalante ak moom ay baat daggasante ak moom non non man jour ji moo ma ñor naka bàyyi wax ji waa mu waat lu mu wax lu mu defee yëpp loolu moom la concerné foofu la tollool te lool te foofu la toll. foofu la tollool te foofu la toll. waaw bu laajoon nag ñu jot a jaar fi na dem laaj magam garaam. garaam mooy kat. général Fass bu ko laajoon du waxee man noonu. Hmm. xam na ne daadaan nga de. mais nee daal moo la dàq moo la gën a nekk xale bu waxul loolu moo lëpp doole bu waxul loolu parce que moom loolu mën a wax te loolu mën a gëm loo ñi muy àndal bu waxul loolu ñi muy àndal la war a wax la war a waxee mais Ada Fass xale am na doole mën na bëri waaw nag moom fëggoom lay waxee ak waxam lay mais yow mais yow dëggal nga ne mën na bëri xale la mën na lépp bu mën woon loolu la ngay wax lépp dëggal mi la wax lépp moom mën na bëre Ada mën na bëre day dëggal boppam xale la am na musique am na doole am na sañ moo tax ma jël ko loolu yëpp nangul naa ko man nag manuma dara. lan moo la gën a xiir man bi ma déggee combat bi dama ne mais attends ñaari mbër yu am fug lañu surtout qualifié numéro 2. Hmm. qualifié numéro 2 ak stade rek ba mu tuuroo soow ma ba jaabande ah. ay lay lalla man day mel ni gaynde bu génnee ci àll ñëw dugg ci biir stade bi. leer kenn doot la xàmmee mooy li nga wax sànq boo demee làmb. lamb la waaye boo génnee ci làmb dootoo. dootoo dootoo dootoo qualifié boobu. wóor na si mbaam bu nekkoon biir làmb rente man ak yow rente ba deret boobu kañ moom yow kañ moom beneen affaire level ngay nekk man xam naa loolu ci yow de mu leer xam naa loolu ci yow de mais lan moo la gën a poussé nga jël Ada Fass war a bëri moom rek ak kese bu baax kese bu baax moo moom moo booleeg moom ak moom mu mën a bëri nga booleeg moom mu prouvé moom tam mu def ay waaw waaw waaw loolu moom dama koy nangu def na ay que daal dafa dafa def ay doo ko jël dafa prouvé moo tax du bëreeg du bëreeg du como du bëreeg ngaaga mm. du bëreeg ku nekk si Coly Faye def loolu mais Coly combat bu neex la. trop combat bu am étincelle la ñu noonu. billaahi walaahi talaahi. waaw Arfa la. waaw la. kenn weeree loolu mën a bëri dama ko nangul. mais ma koy wax moom na ma jox cër. mu jox la cër. na ma respecté man buy wax man. Hmm. na jàpp ni nooleem lay waxal. da nga gis ne buy wax nii. jox la cër daf la xaw a oyofal quoi dama xaw a minimiser ni muy waxee ça veut dire que moom man mënuma dara. man def ma fi dara. non mën nga dara moom. non moom loolu a jàpp xam ma yéen xam ngeen man def naa fi dara. mais moom loolu la jàpp moom na ma respecté. ah ku nekk ba muy bëre maa ngi nekk benn xale di ko seetaan. taman li ma gën a métti nee na moom xale la bi mu lay seetaan ngay bëre quoi. garaawul loolu mu def la benn paa nii quoi paa. <laughs> loolu yëpp dara. nit yàgg na fi nit def nit paa waaw waaw ku yebaate la nit yàgg na fi nit paa bu ñëw paa bi daal ko loolu yëpp dara. ond la fuuf moo ko mag fuuf. waaw ond. keroog suñu signature man ak moom muy waat ay ni mosuma dóor ni mosuma dóor Onde mm. le Fou da ko ba muy jeex. mais Ada Fass nag dóor ko yombul de qualifié qualifié yow ñeme nga taxaw ak Ada Fass xeex moom. ba màgget. waaw xam nga ni yow. Mm. man amul ni ko yàllay saax moom am nga ko. mais fit yi. dëggoo man li may ñaan dama yàlla suñu borom may ma ànd ak la liggéey. parce que xel naaw non non ay liggéey loolu waaye boo ci ne di xalaat. ah nga dee sa morom ngay xalaat fay nga la. ngay la moom. ñu fay ka fay ma ñàkk fay la ñàkk ful la bi boo nga bàyyi ñu fay la comme ni nga waxee kase bu baax te doo dem bu di musique doo defal sa bopp en tout cas daal borom tën yi giri mën ak ñoom bu dajee ci géew bi hmm. hmm. foofu la ñu xamee doon dox na ndayam di nga raak moom lépp nañ séentu lépp ci làmb ji mbër bu garaaw ngay bëree dëgg la ma la wax yow tam ku dangereux nga nag su làmb mën a moom ku xef doo gis jël bi ku xef doo gis jël bi nu muy jeexee kaw wala ci lépp xatar bi wala loo xalaat rek mën na see jeexee xale bi am na doole de yàlla nga yàlla suñu borom gën a may kàttan rek. ba jour incha allah. da ngay moom nga ni. dégg nga lépp xëj na si lu ci xëj dañu def ko si. Ah, bisimilah ngay ak moom rek. ah naa li nga wax micro bi. maa ngi lay nuyu di la ziar di la baal ak di la baal ma lay ñaanal ko jàmm dégg naa li nga wax nag waat nga ne nag may daan yàlla na la yàlla suñu borom defal jàmm ba jour ji nit ku xamul boo xëyee suba looy ndékkee wala looy ndogoo non bul di waat télé vaar mu ngi fi ba vaar amee ba léegi gars yi dañuy contrôler li ñuy wax bu baax toogaatal nga yeddaal sa xel nga xool li nga wax bu baax xam nga ni koy toogal di waan danga koy daan keneen la mais du man man na yow ñooy daje bu ñuul bi ngay dajal de boo xamul na nga dem laajte say grand am na say grand yu jaar toog nañ ñu dégg la micro yi lu ne wax na ko mais après danoo dem vaar damay ragal la nga dem vaar day sóor bu baax li ngay wax dégg nga avant de parler il bu baax. avant de parler il nga xam li ngay wax bu baax dégg nga naa yàlla na yàlla defal jàmm na yow champion nga naan nga maa bu booy wax di nga xam li ngay wax bu baax mais ku gëm boppam moo doon wax nag waaw noonu la demee bu gëmul ma la wax bu ba <laughs> ji ma kolifay rek ci saay la wax waru ji ma fi nekk ak samay morom ma mm. def victoire yi ma def dafa ñu ko mm. yaa ngi dégg kenn nangu ma see jël bërëg ñu bërëg man kon laamu ji il faut ma ñëw voilà il faut waaw ah, Maguette maa bii mooy sama 21 combat. Hmm? ñaata victoire. 4 victoire 4 défaites laa ci am. kan kan kan nga mujjee daan sax. général Fass. général Fass nga demaat jël rakk waaw yaa ngi dégg ah, am fit. il faut mu ñëw wane loo xam ne ni yaa ngi dégg ñu wa wane loo xam ne nii waa làmb dañuy xam ne kat carrément ci dafa bokk si làmb. Hmm. moo làmb ji wax waruma ci. Hmm. bàyyi ma toog laaxar suma liggéey sama di liggéey. dama bëgg liggéey ba ñëpp xam ni liggéey naa. Mm. interview bi sax bëggoo woon noonu mais da nga xamul noo may def. no billaahi bañ naa ko ba sonn. da def dama xamul lu ma lay def rek. waaw moo tax gisoo ma bi nga waxee man la promoteur bi affaire yooyu noonu. waaw waaw jéem naa wut lay. ah di la promoteur gisee naa moom. <laughs> mais mooy loolu yow xam nga sama waay nga. <laughs> la bañ a loolu. baa ngay ziar baax a baax promoteur bi ah. ñu ngi mm. koy ziar bu baax a baax ah. Mm. ñu ngi leen di jaay promoteur bi wax ne ko nag làmbam. na ci na xelam daal dina am làmb ju neex. incha allah non day neex dañ koy tëj incha allah Thiaroye ak Fass dégg incha allah si kàttanu yàlla dañ koy tëj. lamb amateur la. dañ koy tëj. Arafa jàmbaar la ñi muy àndal ay jàmbaar la waaye man tamit jàmbaar laa. non loolu moom ma koy wax nag am na benn wax bu mu waxoon ni man ak moom. Hmm. lan la wax sax xaw ma dër bi la xaw ma la wax. waaw bi. waaw dër bi. man ka man a yow dër bu mu sax jéem a dër bi teg man. Hmm. man ñi may yor dañoo dëgër bopp. Hmm. loolu laa koy wax. ñi nga yor dañoo dëgër bopp bu mu jéem a dër bi. yaa ngi jéem yóbbante ay waxi mag nag. waaw na jéem a fair play quoi balaa mu jeex. ok comme ni ma ko nooyee naka nooyee leen noonu rek. ok baax na alors euh, Coly Faye numéro 2 ñu ngi lay gërëm dañ doon waxtaan rek dañ doon dàq koor rek. kooru mbër ma sant mu gërëm. Ah, ñëw waxtaan non dama lay bàyyi nga gërëm moom. ñëw waxtaan ci li nga xam moom mooy entraînement yi changement bi am ci weeru koor gi surtout mbër bu nekk ci préparation combat. Hmm. ak alxuraan bi ba xam diw jàng na macha allah ku jàng nga. Euh, yàlla na la yàlla gën may jàmm. sa sa sa doom yi ñoom tam nga jaaraleen foofu ñu jàng alxuraan. waaw non non kenn ki soo ko taxoon fii léegi ñu ñu jàng alxuraan xale bu ndaw boobu noonu. waaw très bien très bien loolu de ma bàyyi la nga gërëm gars yi. waaw may sant di gërëm di sant sama waa SAF. Hmm. sant ñi ma bokkal ci wàllu papa xam nga mënoo tudd tur. waaw mënoo tudd kii bàyyi mais man noonu ma bokkal ci ñi ma bokkal ci wàllu yaay hmm. ay ñi ma bokkal ak sama xarit yi may àndal ñëpp waa récupéré su ma nee récupéré wax naa ñëpp dal jaam roqu waa roqu cëm waa roqu dof mm. ak waa kan sama gars ma defalool bi ma nekkee booy enfant mm. ak sama gars yi nekk maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp waa mm. oris lambay kasel usine manko jàppo oris ngeesu gaal gi bagdad gërëmal ma Sam Sam waa waaw naa ñëw si moom bagdad état kof géej gi maa ngi sant AG e, bàyyi ma kenn di samay rak samay xarit. di gërëm suma soxna ay sëñ Moussa bu Orisi Issa Laye. xarit yëpp suma jigéen sama mag ma koy sant di ko gërëm Fandiaye ah, di sant ñëpp bàyyi ma ñi kenn di sant Modou Faye ak suma turandoo Koli Faye. sant sant sumay goro sumay papa suma yaay di sant ñëpp. bàyyi ma kenn di sant kenn la man. Sam Mbaye waaw sama xarit la man. sama mon frère. moo man moom ñoo papa. waaw yéen a ku baax ak ñu noonu. waaw ku nangoo sonn sant moo seen. Birane. Hmm. Birane Sall. booy réer yëpp maa ngi sant ay ñoom Seydioum. Hmm. Mom waa Caaroy bi yëpp waa Caaroy yow waa Diamaguène. Hmm. di ñaanal Reug Reug ndam si combat bi mu jëm moo moo di ko ñaanal yàlla borom mee ko si di ñaanal Mama Lamine ndam. di ñaanal Siteu combat bi taxaw démb di ko ñaanal suñu borom mee ko si ndam. képp ku am combat fii ak di ñaanal ñëpp combat ak booy ay ñoom Bas Jona képp ku am combat rek ay Sa Thiès numéro 2 maa ngi la ñaanal ñëpp ndam képp ku am combat maa ngi la ñaanal suñu borom la ndam sa lamb ji nga jublu mm. ku amul combat yàlla suñu borom may la combat maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ku ma limul xam ne damaa juum jaajëf jaajëf Coly Faye bu juumee rek sant sama benn grand bu euh, da ngay juum rek grand Boga maa ko faale maa bu baax mm. day jàpp si lamb ji maa nga sant sama benn grand bu nekk Canada tur bi laay fàtte badagay mm. grand bi maa ngi lay sant di la gërëm hmm. di sant ñëpp di gërëm ñëpp bàyyiwuma kenn jaajëf Coly Faye la ñu fii ci tefes bi caaroy lan géej caaroy sur mer caaroy sur la ñu nekkoon ci taatu tefes bi la ñu nekkoon kafe hmm. gi gars yi ñu ngi koy waajal kon euh, mbokk yi gis ngeen noonu loolu la ñu gis euh, ci kafe gi xarit yi copain yi ñu mu doon àndal ba muy nekk xale découvrir ngeen tuuti Coly Faye euh, numéro 2 ci koor gi ak itamit ci yoonam jaar-jaaram ci wàllub daara Seydina l'américain the big maa lay gërëm di la sant every good every nice ah tu es every good tu es every nice waaw every fine maa ngi jaajëfal jëwriñ Adama mooy suñu jëwriñ gis nga ak borom mbaxana mooy mooy wàcce xas mooy dóor xasida yi ah, mooy dóor xasida yi xasida aller ak retour Adama ñu ngay jaajëfal bu baax a baax borom xasida yi <laughs> bon xaw ma daal mais daal ñu ngi nuyoo waaw ndog bi nañ nañ ko nëbb gaay ndog bi ñun kay dañuy ndog moom yem si madame ñu ndog jaajëf l'américain maa ngi lay ziar l'américain ñetti yoon laa koy nuyu <laughs> Seydina <laughs> maa beneen yoon incha rabbi ak beneen invité allahumma salli ala sayyidina muhammad adada ma fi ilmila salatana daimatan fi dawami mulkila Baba gën a nekk roi des arènes bi bi gars yi dafa coow moom am ko moom mooy suñu père rek fii ñaare daal dañ koy ñaanal waaw ñu naan taw feex rek jaajëf si kanam mooy daal Sasale